doolalal li nga moom Supersonic suma tabaski ren neex na te Jammeh not personally xam xamuloo ko personally no I met him I think once in the US and that was it man xawma xawma Jammeh in person mm-hmm. I have nothing to do with him te <clears throat> Jame, moom yàlla mayoon could have been a very uh, good citizen. Mhm. naa um, after the presidency some mu toog because he took over when he was young and people clamoured to him people believed in him because he came from a poor background like all of us. Mm-hmm. so we were thinking that was going to be a very good person good president because he's a regular guy you know, could ne dummy billionaire la. he's just like you and I. So we thought he knew our issues. Everybody loved him. Mm -hmm. But the power got into his head. You listen to this TRRC, or oh, if you knew what was going on, it was unbelievable. And all that they were doing it because they want to hold on to power. Power got into their head and money. All they were thinking, amassing money. And this is the problem we have with African presidents. <clears throat> if you think you're, you know, but when they see power and money, you lose them. They lose their heads into it. So that's what, what Jammeh did. And mom, not only corruption and power, but if you start, people start to disappear, people start to die, kill, that, that's, that's, that's, that's a no-no. You cannot do that. We can't let that slide. We couldn't do anything. All we could have, we, well, all that we did was write and talk about it.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 doolalal li nga moom supersonics suma tabaski ren neex na aleykum wa rahmatullahi wa barakatu am na lu ñu leen andil lu bees tàq loolu mooy lan diggante diggante nekk programme boo xam ne dafa jóg pour defar diggante yi diggante dinañ waxtaane nag si biir kër yi diggante nit ki ak boromam dinañ dem si biir office yi diggante nit ki ak yonantum dinañ génn réew mi. diggante nit ki sax ak moromam bàyyi daam am na ko tiit na lool ci diggante ak boromam mbaa du yàqu yi. diggante du fi yàqu diggante dina ko defar fii. ndax nag réeroo amul daal waaye ñàkk waxtaan a am bu ñu waxtaanee gindandikoo programme boobu nag ana ñan ñoo koy amal. Mouhamadou Lamine Kane Al Mansour ànd ak xaritam Baye Dame Diouf ñooy def diggante. Gambian Talents TV. Mhm. ñoo leen di indil programme bu mag boobu leen. dinañ ko indi ajuma bu nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee ba juróom-ñeenti waxtu.